conférence bi conférence politique la. donc voilà pour que ñu bëri bëri xam ko. Euh, li ko taxoon a jóg du Ousmane Sonko en tant que premier ministre moom mm-hmm. moo woote woon pour dem pour jàkkaarloog euh, ñi nga xamante ñoom ñooy ñi ko fal pour wax ak ñoom mm-hmm. mais Ousmane Sonko en tant que président bu Pastef moom moo woote woon pour jàkkaarloog ndawi Pastef aussi pour muy leer parce que lu jar a leeral la aussi mm-hmm. parce que nekkul loo xamante ni dafa woo askan bi ne leen ñëw leen ñu waxtaan mais dafa woo ñi nga xamante nii benn parti lañ ci politique euh, si si biir Pastef muy waa CPS CPS nag boo ko déggee mooy jeunesse patriotique Pastef mooy jeunes yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk biir Pastef di fa ñoo ñu la woowoon mais du parti bi yëpp la woo wala du waa askan bi yëpp la woo du Sénégal yëpp la woo ñoo ñu nag bu leen woowee c'est normal donc mu def ay discours politique donc waxtaan ak ñoom donc si naka la euh, parti bi taxawee mhm. fan la parti bi jëm mais aussi tamit ñun xëy na li ñu ëppal importance si biir débat bi donc en tant que ñoo xamante ni bokkuñu ci biir parti bi. mooy yenn euh, yenn yenn yi nga xamante ni jot na ko fa souligner donc lu mel ni euh, li nga xam moom moo fi amoon ci entre deux mille vingt ba deux mille vingt quatre. donc muy euh, benn mën nañ ci jàppale cas de Didier Badji et Fulbert Samb te te je pense que ñun yàgg ci alerté yàgg ci wax lu bëree bëree bëri xëy na ci biir waxtaan dinañ ci indi dinañ ci wax lu bëree bëri. loo xamante ni xam nañ ko si te yàgg nañ ko ci wax. Uh-huh. ak yoo xam ne xëy na tamit population bi xamuñu ko te Macky Sall def na ko ci. donc aussi tamit bokk na ci ñi nga xam dañu détourner ay milliards. Uh-huh. li nga xamante moom mooy jafe askan bi donc bokk na si lu mel ni dossier Mame Mbaye Niang donc affaire magistrat yi donc yooyu yëpp daal yu am am solo yoo xamante ni nii donc ñun bëgg nañ ci taxaw bu baax a baax a baax mhm. euh, bu ma ko commencé si li nga xamante ni moom mooy le cas de Didier Badji ak Fulbert Sambou mhm. mais ñëpp xam nañu ne Euh, jour bi nga xamante ne nii si la ñu def communiqué ne donc dafa am ñaari gendarme yoo xamante dañu dañu disparaître ñëpp xam nañ ne askan bi kenn gëmu ko woon. Mhm. parce que moment boobu noonu amul kenn ku mën a confirmer wala ku mën a gëm li nga xamante ni moom mooy tees bi nga xamante ni moom la ñu wax si disparition disparition bi. donc euh, le cas sax damay nuy sama grand muy Fadilou Keita donc moom ci la génnoon def benn li nga xam moom mooy publication sur Facebook. Mhm. loolu lañ ko jàppoon arrêté ko donc pour outrage à magistrat ak yeneen ak yeneen mais Euh, en tout cas ñun si gëstu yi nga xamante jot nañ si avancé jot nañ ko si def. Mhm. donc en tout cas information yi ñu am te wuute wuute li askan bi yàgg a gëm mooy que ne ki nga xamante ni moom mooy Fulbert Sam ak Didier Badji disparaître ñu mais dañu gëm ne dañu leen a éliminer. Mhm. dañu leen a nag si ay cas yu bëri la parce que gis ngeen avant loolu ku mel ni Ahmed Suzanne Camara si xëy na jamono boobu ñu ngi woon parti au pouvoir taxawoon wax na dañ leen a rey taxaw ba wax ba tuumaal si Pape Sonko ne ñoom ñoo si am intérêt donc pour faagaagal leen Euh, après li liñ si liñ si jot a gëstu am nañu ay jàngat ay ay ay ay gëstu yu leer ka ne ki nga xamante ni moom mooy euh, Fulbert Sambou mhm. wala ki nga xam moom mooy Didier Badji bi nga xamante ni kooram ba léegi feeñ feeñagul mais Didier Badji dañ ko éliminer mhm. te Didier Badji en tout cas information yi ñu am ñun ci yenn nit yi xam ne am nañ ko si mooy que bokk na si ki mu mujjee toogal mooy le président de la République Macky Sall parce que moom la mujjee toogal mhm. parce que Didier Badji pour wax leen ne leen moom la ñu chargé woon li nga xamante ni moom mooy pour muy def enquête si téléphone Adji Sarr si audio yi nga xam ni woon si biir téléphone Adji Sarr ñan la Adji Sarr doon waxal mm-hmm. donc loolu lépp ki nga xam ne moom moo ko chargé woon parce que ñoom ay éléments de renseignement seen rôle la woon mm-hmm. kenn ki mi ngi biir gendarmerie kenn ki mi biir renseignement bi te yëpp presque même cercle bi la donc moom la euh, moom la ñu woon li nga xam ne mooy enquête boobu noonu pour mu waroon enquête li nga xam mooy téléphone Adji xool audio yi si nekk ak kan la doon waxal mm-hmm. après nag si ginnaaw bi ñu ne président de la république mujjee pour la lu yomb mm-hmm. Didier Badji Fulbert Sambou ñan ñoo leen rey parce que nag bu ñu demee ba si dëkk ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a ñoom ñoo war di ñoom la ñu tuddee ay ay ay agents de renseignement généraux ñi nga xam ne ñoom ñoo war a renseigner ñi nga xamante ni mën naa ne sax sécurité dëkk bi seen loxo la nekk parce que ñoom ñooy xool est-ce que dëkk bi am na euh, li nga xam moom mooy menace wala amu ko mhm. tey ji bu fekkee dafa am menace benn menace boo xam dafa am ci dëkk bi ñoom ñooy taxaw ñu alerter ñu wax ne attention kat parce que dëkk bi moment bi ñu toll nii am na benn menace buy jógee si bërëb sàngam wala bërëb sàngam nañ ko moytu kon ñooñu mën naa ne euh, cinquante pour cent c'est suñu sécurité réew intérieur ñoom ñoo ko yor donc bu ñu dee ba si dëkk boobu ñu ne la ñooñu dañuy disparaître c'est parce que ñëpp xam ne kon si dëkk boobu si danger la nekkoon te nag wax dëgg yàlla man personnellement mësuma gëm teesu disparaître mais man dama gëm ne la te ñi leen parce que nag le président Ousmane Sonko wala le am na ci ay information yu te nag vraiment ñi ngi xaar pour que la justice def liggéeyam. bu ko defee ñu wax ñooñu seen ay mbokk ñan ñoo leen rey. ak fan lañ leen jaarale bu ko defee Sénégal yëpp euh, am si li nga xamante ni moom mooy information bi gën. aussi euh, beneen bi muy si côté magistrat yi xam nga loolu loo am importance la mooy ñu wax ci magistrat yi parce que man personnellement bi ma demee ci dialogue bi mm-hmm. mais suñu première prise de parole wax naa ko parce que nee naa li ñuy li nga xam ne moom moo ñu fi indi muy assise de la justice bi dafa am solo mm-hmm. parce que magistrat bu dëkk bi tollee fii ba ñu jàllalee élection ba ñu fal euh, nouveau président bu bees ba ñun ñëpp ñu toog tey ci plateau yi di def ma ne leen bu ñu bu ñu demee ba taxaw fii naan dañuy waxtaanee li nga xam moom mooy wàllu justice bi. Mhm. leen gërëm yéen magistrat yi parce que dafa am taxawaay bu extraordinaire am. Mhm. mooy que ne yéen jël seen ay responsabilités bi nga xamante ni ki fi nekkoon bëggul woon a tëggee élection yéen jël seen ay responsabilités nekkoon da ngay tëgg élection yi ci nii wala ci naa. ba mu mhm. mujj tëggee élection ba tey yàlla def kii gagné gagné réew mi nekkaat ci jàmm. mais aussi tamit bu leen fàtte beneen côté mooy bu réew mi tàkkee ba ñu nekk si ay jafe-jafe diggante 2021 ba 2024 mhm. aussi yéen di ngeen si am rôle bu am solo bu ngeen suyee yéen magistrat yi parce que lan moo indi xeex bi nga xam ne moom moo fi amoon mooy mhm. dossier Ousmane Sonko Adji Sarr dossier Ousmane Sonko Adji Sarr benn magistrat moo ko jël yóbbu ko chambre criminelle te magistrat bi mu koy yóbbu chambre criminelle xam na ne dossier bii du dossier bu war a dem chambre criminelle d'abord mhm. parce que dossier la ñi nga xam ne ñoom ñooy témoin ñoom ñëpp li ñu wax ak ñi nga xamante ni nii xëy na ñoom ñoo nekk fi mbir mi nekkoon muy Ndeye Khady Ndiaye ak ak borom këram ak ki nga xam ne moom mooy médecin bi nga xam ne moom moo defal Adji Sarr li nga xamante ni moom mooy euh, euh, médic médical bi. Mm-hmm. mais ñoom ñëpp li ñu wax boo ko dégloo da ngay xam ne viol amu fa. léegi nag benn magistrat jël dossier boobu yóbbu ko chambre criminelle donc ba ay bakkan yu bare bëree rot si ñi naan lu lu ëpp quatre-vingts personnes ñi naan quatre-vingt-six personnes yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan kon aussi dañu nangu ne. Euh, dëkk bi bu bu egsee foofu magistrat yi ñun ñoo ko fa yóbbu. Mhm. moo tax li mu wax ne am na ay magistrat yoo xamante ni nii man dama gëm ne d'abord pour ñu wax justice bu équitable pour ñu wax ne justice boo xam ne du am ku ma ku ma am ndey ku ma amul ndey mais aussi justice bu tegu si yoon man dama gëm ne magistrat yooyu noonu faaw ñu jël leen place bi ñu occupé. Mhm. parce que gis nga boo jëlee lu mel ni premier cabinet deuxième cabinet dama koy wax publiquement mu leer. Mhm. ba xam moom mooy procureur de la république bi fi nekk nii muy Abdou Karim du ay du ñu ay magistrats yoo xamante ni war nañu mën a continuer di écouper fonction bi nga xamante ni moom la ñu écouper parce que dafa am rôle bu ama am solo boo xamante dañ ko suyee ak ñi fi nekkoon ñëpp xam nañ ne ñi fi nekkoon. mais si sis ku ma am ndey ku amul ndey la mooy boo ànd ak Macky Sall loo neex nga def dara du la ci fekk boo àndut ak Macky Sall donc loo wax lu mu tuuti ñu jàppale tëj la ci kaso bi mhm. te même moment boobu noonu procureur di autosaisir wu di jàpp ñenn ñi am na ñu nekk dëkk bi di wax lu gën garaaw kenn jàpp donc am na ay nit yu fi taxaw ne dañuy dem taal kër Ousmane Sonko am na ñu fi taxaw ne rey Ousmane Sonko ñu naan ko sax boo dewee ñu donn sa jabar pourtant ñooñu leen si am na ay militants yoo xamante ñu ngi wax lu gën a lu gën a lu gën suufe loolu noonu ñu leen di jàpp di leen tëj si kaso bi 11 mois fàtte leen fa c'est parce que yooyu noonu dañ doon def loolu man dama gëm ne bu fekkee ne dañu bëgg taxawalaat benn justice bu équitable magistrat yooyu d'abord dañ leen fa war a jëlee ñu indi fa ñeneen ñoo xamante ni dañuy liggéey seen aqulaay taala ñeneen nga xamante ni duñu xool naag le président Bassirou Diomaye Faye wala kii ànd naag euh, ancien président Macky Sall mais li ñuy xool mooy képp koo xamante ni nii citoyen sénégalais ga boo jéggee yoon ñu tegaat la si yoon te ñooñu nag pour que pour loolu am d' abord faaw ñu indi yeneen magistrat teg leen fi ñu jële fi magistrat yi nga xamante ni nii ñoom ñoo fi nekk depuis boobu di def la sale boulot avec ancien régime bi nga xamante ni nekkoon na fi je pense que loolu aussi tamit lu am am solo la si euh, biir discours Ousmane Sonko mais aussi tamit ñëwaat na si li nga xamante ni moom mooy si ndaw yi wax ak ndaw yi mais mais mais justice boobu avant

loolu mooy li nga xamante ni moom moo ko war taxawaay boobu la war a am mm-hmm. mooy taxawaay bi nga xam ne moom la askan bi yëpp di xaar si moom mm-hmm. parce que askan bi xaaruñ si moom ne ñi nga xam ne dañu bokk Pastef donc mën nañu wax lu leen neex mm-hmm. donc bokk Pastef loolu ça pas dire que ne yow am nga droit wax lu la neex si dëkk bi am nga droit di saaga nit ñi am nga droit di xas nit ñi déedéet bokk Pastef citoyen sénégalais nga d'abord comme citoyen bi nga xam ne bokkul Pastef mhm. pour man kon li Ousmane Sonko wax loolu mooy discours responsable bi nga xamante ni nii ñun ñëpp moom lañ doon xaar ci moom mhm. mooy que ne bépp sénégalais ak foo man di bokk boo defee loo xamante ni yoon daf koy tere yoon dal ci sa kaw. Mhm. képp ku nekk ci réseaux sociaux yi yaakaar ne da nga ànd ak Ousmane Sonko wala da nga bokk Pastef ba am nga droit di xas nit wala di saaga nit wala di diffamer nit mais loolu moom lañ doon xeex. loolu mooy li nga xamante ni moom moo taxoon euh, askan bi mere Macky Sall loolu mooy li nga xam ne moom moo fi amoon si régime bi passé mooy ñi nga xam ne àndoon nañoo ak moom lu leen neex lañ doon def ñaanoon ak Ousmane Sonko lu ñu def lu mu tuuti ñu tëj leen si kaso bi ba si Ousmane Sonko ko tëjee si kaso bi Bassirou Diomaye Faye bi nekk tey président de la République mais lan na ko si page Facebook pourtant moment boobu muy def a garaaw bu waxee loolu pour man ndaw ñi ñoom ñoo war a comprendre que ne Ousmane Sonko mii kat ñoom ñoo ne woon Macky Sall da doon def kumba am ndey kumba amul ndey Macky Sall day jaay doole léegi dañu indi Ousmane Sonko am si moom yaakaar ne bu ñëwee dina jël réew mi mu teg ko si yoon. Mhm. bu ñëwee dina dindi si sis kumba am ndey ak kumba amul ndey kon nag Ousmane Sonko kon bu waxee loolu ñoom nañu comprendre que ne ñoom ñoo xeex parce que bi ñu doon xeex xeexuñu pour que dañ see bëgg a teg Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko dañoo neex. Mhm. waaye bi ñuy xeex dañ fi dañ parce que dañu bëgg mu defar réew mi léegi nag bu fekkee da nga xeex pour bëgg mu defar réew mi c'est parce xam kii li mu wax arrangé na ma wala kon man gisuma dara loo xamante ni man man na mën na yàq si li nga xamante ni moom la discours bi Ousmane Sonko def démb. Mhm. mooy que ne nga bokk Pastef nga bokk APR képp koo xam ne teggi nga yoon na yoon def li nga xamante ni loolu moo ko war. te mu bañ am benn par par loolu la ñuy xaar te je pense que loolu lañ doon xeex depuis boobu ba léegi. exactement très important mu nekk lu am solo euh, Ousmane jaajëfal naa la bu baax baax alors euh, Demba Thioune dab nañu léegi.